Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez la légalité d'occuper le poste de ministre de l'Intérieur. Vous êtes un excellent avocat, nous le reconnaissons, mais il faut avouer et accepter avec nous que vous n'avez pas la légitimité d'organiser les élections. Je l'avais dit à votre prédécesseur à la tête du ministère de l'Intérieur l'année dernière, pour deux jurisprudences. le président Abdou Diouf avait nommé le général Lamine Sissé en 1997. C'est lui qui a organisé les élections de 2000 et nous avons connu une alternance apaisée. Le 25 juillet 2011, le président Abdoulaye Wade, sur pression de l'opposition, et dans cette opposition, il y avait président Macky Sall, avait nommé Cheikh Gueye pour diriger les élections. Qu'on ne me dise les élections sont organisées par ces brillants euh, fonctionnaires de l'État. Vous serez le ministre chargé des élections. vous n'avez pas la légitimité d'organiser ces élections pourquoi parce que monsieur le ministre da ngaa far bañuñu la amuñu ak yow benn problème mais da nga far les gens le disent vous êtes le responsable politique de Benno Bokk Yaakaar de Tambacounda on ne peut pas être juge et partie si nous voulons des élections libres transparentes et démocratiques il faudra inéluctablement élire une personnalité neutre à la tête de ce ministère ou bien lui donner la possibilité d'organiser les élections comme l'avaient fait les prédécesseurs du président Macky En venant de Kermassar, Monsieur le ministre, je vous félicite pour euh, euh, l'Union FADEF qui sapeur-pompier, caserne sapeur-pompier. Mais je vous avais aussi demandé, à travers votre prédécesseur, sous-préfecture Bouyembel, préfecture bu Kër Massar sous-préfecture bu Malika sous-préfecture bu Kër Massar amuñu ay locaux ñu ngi dëkk ci loo ñu ngi logé ci loo xamante ni ay appartement yu ndaw a ndaw et Kermassar est le troisième département de la région de Dakar avec plus de 750 000 habitants ngalla tabaxal leen leen ay locaux yoo xamante ni foofu la ñu mën a nekk. li nga xamante ni nag mooy ci répression bi nga xamante ni moom la ñu sunu mbokk policiers yi di def ñun amuñu policier benn problème la preuve le général Yagg qui est un grand frère à moi quand il s'agit de m'arrêter moom moo ma jàpp jàpp suma soxna woo suma doom alors donc pour vous dire mais yàqul dara ci suñuy relation donc ñoom commandement la ñu nekk nous nous comprenons comment fonctionne ce système ñi leen di commander ñoo war a xool li ñu leen di jox en terme de mission donc ñun amuñu benn problème ak ñoom mais député taxaw te doo tef écharpam terewul nga door ko lacrymogène ñëw demal nga jëli nit brimé ko doo respecter benn euh, benn droit am loolu la nit ñi di kaas te je pense que il est urgent aujourd'hui compte tenu du fait que li nga am ci expérience au niveau national comme au niveau international nekk acteur judiciaire j'estime que vous avez l'obligation aujourd'hui de corriger manquement yi nga xamante ni moo doon am à la tête de ce ministère je vous remercie